bu fekkee ni ruya la waaye bu fekkee xulum la gént nii rek kese kese ñenn ñi dañuy reer lu ëpp waaw bu ko defee gént ay gaynde di leen dàq ak yu kenn xamul fekk reer bi la waaw moo tax yonent bi ni di leen reere lu woyof te itam ngeen di dox ñetti tànk soog a tëdd lu ko moy lu ko moy te wax nañu ni yàpp nga lekk ko war nga ko ormaale fukki waxtu ak benn soog a teg leneen ci moom bu dee yàpp nag war nga ko ormaale fukki waxtu ñaar soog a teg leneen ci moom waaw ki lekk yàpp léegi nag daldi tëdd léegi ni dafay nelaw kooku dina gis lu ne ci guddi gi kooku dina gis lu ci guddi gi moo tax foofu it organiser ko baax na bañ a topp sa bakkan yonent bi moo mel noonu bi ci des itam mooy a ah, dëgg la yàlla yàlla tuddalul tuddalul yonent bi kañ la àddunay tukki tudulukuku mais melalal na ko nu muy tukkee boo jàngee suratul inshiqaq gis ko ci boo jàngee suratul infitar gis ko ci boo jàngee suratul takwir gis ko ci ndax li mu wax ba giñ giñam gu yéeme googu fala uqsimu bil xunnas aljawaril kunnas defe naa kooku ñu ne écologiste lañu war nañ ko jàng bu baax gis nga al khunnas wal jawari al kunnas ay xeeti bëddéew lañu yu nga xam ni yàlla giñul ci ñoom mais ci xam-xamu boppam bi leen bind la giñ ëpp naa jaawale ndegam nit lañuy tere mu giñ ci dara lu dul yàlla kon yàlla du giñ ci bëddéew waaye dana giñ nag ci xam-xamu boppam bi ko bind te loolu mooy dana giñ ci boppam wala uqsimu bil xunnas al jawaaril kunnas tubaab yaa ngi koo toppandoo bu metti ci côté boobu ba tax Maodo daan wax ni ñun dañuy nafar tubaab yi di defar ñun nafar tubaab yi di defar mais ñu ngi roy yàlla ci alxunnas maanaam euh, euh, seen char yi xew léegi xeetu char yooyu la nga xam ni waxuma ñu fetal la ci mi boo gisee char bi rek sa fit yépp génn ci lu mel noonu la la demee parce que alxunnas ay bëddeew la mais ay bëddeew la yu nga xam ne boo ci gisoon tey xam ndax melowoo aljawaril kunnas mooy yi nga xam ni ndax ndax bis bu ne nangami àdduna tukki bis bu ne nangami àdduna tukki bu fekkoon ni ñoom yàlla deful ci ñoom code yi mu def ci ñoom ba àdduna bu tukki ñu dal di koy jëkkanteeg moom mànq ko hein? ko te bés bu ne kenn xamul ci àdduna yi euh, li ciy tukki parce que bu ci sa service jeex rek jeex na yàlla bàyyi la nga explosé mais bu doon bu ci explosé mu bàyyi ko lépp agsi ci sunu kaw fu nu jëm mais ñoom seen gaawaay ëpp na ba bu ci explosé rekk fekk na ñu mànq ko ba noppi beneen ci côté bi àdduna bu sa service jeex yàlla bàyyi la nga explosé aljawaari alkunas parce que alkunasa mooy mbalit almiknasa mooy bale ci baat yooyu lañu leen wutale tur ñoom tudde leen aljawaaril kunnas parce que du ñu toog bu ñu toggee àdduna tukki parce que fu àddu fu bëddéew fu bëddéew explosé fekk na agsi nañu manku ko bu yàgg li ciy agsee kës néew ci ñun di ay poussière seetal ni nu la jële pour wax rekk ni nag moom moom yëf yi te ni muy doxe moo ko doxale noonu waaw إذا الشمس كبرت وإذا النجوم انكدرت wax na ko ci alquran pour wax ko yonent bi won ko ni ko seen planète bi dana dem yi comme yi ci des planète bi ngeen nekk di ko kile dina mujj jeex service am jeex mu def ni ñëpp def ni ñëpp jant bi dana dem ba rayon yi mu am dootul mën a bët énergie sombre bi koy wër bëddéew yi noonu daañu dem ba gëmm euh, nee na euh, am na melo woo xam ni euh, danaa ko yëngale àdduna bi ba rab yi gëléem yi ku mu fekk doom ju matagul ci sa biir di ko wocc rab yi rab bu ne dootul mën a toog tax dañuy xam danger bi ñoo koy gën a yëg doomu ni ko bu ko defee ma jox ndigal géej yi ñu fuur ci façon bu nga xam ni benn doomaadama aadama mënu ko oh, oh, xool du gis lu lu melati nonu ci àdduna e ko ko defé ndeysaan ah bakkan yi nak ñom itam xam nañu yan yaram lañu nekkon bakkan bu ne wuti yaram bo mu nekkon ndeysaan xali yi nga xamni dañ leen wacc nonu rek ken soxla wu leen jur leen wacc leen ñooñu nag ñu dajale leen ñoom itam am na ñu seen jardin d'enfant te du laaj bi mu ni dinañ ko laaj liir yooyu def ni loolu moo ci jaadu loolu moo ci jaadu parce bu jëkk arab yi soxlawuñu doom bu jigéen doom bu góor rekk lañu bëgg waaye yàlla nag neen doom yooyu man maa leen di dajale di leen laaj waaw lu tax seen bàyyi bëgg góor te bañ jigéen sëñ Babacar daan na wax ni euh, ci ñi koy wax ni ko sama soxna yeeweeku na waaye ndeysaan jigéen la am mu ni bu ko waxati mukk mu ni ko jigéen ju baax a gën góor gu bon boo ko daan wax ni jigéen ju baax moo gën góor gu bon bu ko waxati mukk ne bu ko defee magistrat yi ah dal di ñëw ubbi yi xam nga yu mel noonu bés bu ne mu am feneen fi la am bis bu ne mu am feneen pour wax la yàlla moomeelam nu mu toll fii rek la amagul mais bis bu ne mu am feneen bu ci sa service jeexee rek jeex fii nag service am jeexagul tabarkal la xaw ma kañ lay jeex mu mel ni loolu la ci mën a wax yonent bi waaye nag ni ko bés sàngam lay tukkil àdduna waxu ko ko walla bu ko waxee waxu ko pour mu wax ñu ko bu ñu ko waxee àdduna tukki waaw ok mais itam mais itam waaw ma ma maa gën a tuuti tawarka laa tiitulu ragalu jaaxlewul tey na jox nga ko tey bu wóoreen yàpp yàpp ba ko ni tëkku daan ba keneen mënul tane xel man dox bi nga xamee ni wóor na ni yow yàggul baax jaar may digal yàlla la fi jaar kon bi leer bi laa ilaha kenn mënul ak salaam nga jéggal ñu la wax ji tabarkala tabarkala tubarkal la man day duma leen dog dénk waaw incha allah duma leen dog te sëriñ Babacar ma jox ndigal waaw kon nag duma leen dog mukk ndax itam ah am na lu ma xam te dama koy wax toujours mësuma am mukk mukk xarit xarit bu soppul sëriñ Babacar Si mësuma ko am mukk mësuma am it àndandoo bu soppul sëriñ Babacar Si sañu ko waaw lii daal am na moo tax duma leen dog yàlla xam na ko duma leen dog mukk ma di leen yëgal ne masuma am mukk xarit bu soppul sëriñ Babacar Si masuma ko am masuma am mukk àndandoo bu soppul sëriñ Babacar Si mënul nekk waaw loolu yàlla ko dogal te komitam seen lépp ci sama loxo la ko teg naka laa leen di doge loolu mënul nekk loolu mënul nekk mënul nekk te lii ma wax tey te lii ma wax na ko jàpp waaw lii ma wax na ko jàpp uh-huh. tabarkalla tabarkalla xewul